cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi te may ko wér-gu-yaram ñu fas yéene waxtaanak ak yéen tey ci tomb boo xam ne ni jamono daf ko laaj muy lépp loo xam ne dafa aju ci fitna wala ay jafe-jafe yoo xam ne jullit yi dañ koy dund ci àdduna bi li koy waral ak jafe-jafe yi ci mën a juddoo ak yoon yan lañuy jaar ba saafara ko ak nan lañ koy saafara jëlee nañ ci xadis boo xam ne Zubayru bun Addi Zubayru bu na àddi moo ko nettali nekkoon ci ñi nga xamee ne ñoo fi nekkoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne dañoo dikkoon ci Anas bun Malik Anas bun Malik nekkoon bëkk néegu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi ñu koy jox yonent bi moom Anas bun Malik mi ngi amoon fukki at mu bokk ci ñu mujj dund ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon fan lool Anas nee na li ma nekk ak yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam ci ak lewetam musuma def dara yonent bi na ma lu tax nga def ko wala. mu sant ma loo xam ne nii mënuma ko moom anas bun malik radiallahu anhu nee na yonent bi ka ñaanaloon yàlla na ko yàlla may alal may ko ak njaboot may ko fan wu gudd moo tax ko yàlla mayoon njaboot la ay doome ki sët te ko yàlla joxoon am man-man la Zubayr bun Adi bi mu dikkee ci Anas bun Malik radiallahu anhu ne ko lay tawat dañ lay jàmbat li nga xamee ne moom lañu xajaaj bun yuusuf di teg xajaaj bun yuusuf kenn la woon ci ñi jiite woon lislaam nekkoon ku tewale mokkal alquran baayam itam nekkoon jàngalekat moom itam anas nekkoon na ab jàngalekat xajjaaj euh, bun yusuf xajjaaj nekkoon ku teel a mokkal alquran nekkoon ab jàngalekat moom xajjaaj bun yusuf yàlla def mu dem ba nekk kilifa waaye nag mu nekkoon ku dëgër nga xam ne li ko yàlla may ci mane jiite ab administration jiita nit ñi ak lañ cay nettali noon la histoire di nettalee ci loo xam ne nii nee nañ dafa mënoon a tooñ ak njabootam gi mu jiite woon ku mënoon a rey la itam loolu histoire moo ko nettali moo tax àdd yi Zubayr bu na àdd yi ne dikk ci Anas bun Malik moomule di ko jàmbat kooku nga xam ne mooy xajjaaj bun Yusuf te xajjaaj moomu jàng na ci Anas mun Malick bi mu dikkee dëkk jàmbat lim leen di def ci ay jafe-jafe ak lim leen di teg Anas bun Malik wax ko fàttali ko waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka asbiru fa innahu laa ya'ti zamanun illa walladi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam anas nekkoon ko na ngeen muñ ak lu mu leen man di teg ci ay jafe-jafe ak i metit na ngeen muñ ngeen xam ne jamono ju ñëw rek mooy yées jamono ji nga xamee ne moo ko jiitu ba ba ngeen di dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ngeen di dajeeg seen boroom tabaraka wa taala naka jamono ju ngeen ngeen di dund jamono jii mooy yées jamono jëkk jiitu te jamono yi ñëw seen gannaaw itam mooy yées jamono jii nga xam ne moom ngeen di dund ba ba ngeen di dajeek seen boroom tabaaraka wa taala hadis bii mi ngi nekk ci saxiixul Buxaari ñu jële ci abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yataxaarabu zamaanu wa yanqusu al amalu wa yulqa ashuxa wa tazharu alfitanu wa yaksuru alharaj sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono dafay gën di gaaw gën a jege gën gaaw liggéey dafay wàññeeku néew nay dafay tas fitna dafay fés te bir su boobaa li ñuy wax xërëj dana bari ñu laaj ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy xërëj mun a alxaraj mooy alxatlu mooy rey moom lay firi ci langue arab alxatlu alxatlu mooy rey xadis bi ñu ngi ko jëlee ci saxiixul buxaari kon loolu rek di lenn ci xeetu fitna bokk na ci sabab yi nga xame ne nag mooy indi fitna alal ak jigéen bokk na ci li nga xamee ne mën naa indi fitna tëccoo boo gis ci àdduna rek alal a ko indi bari na ci bokk jigéen itam bari na lu muy indi fitna fàttaliku ngeen histoire yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam ci Égypte ak fitna jooju nga xam ne moom la ko soxna buur ba tegoon ba mu dugg ca kaso moom yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam moo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa wex wax ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Usaamata bun Zayd sallallahu alayhi wa sallam ne. maa taraktu baadi fitnatan adarra ala rijaali min annisa yonent bi nee na sama gannaaw fitna ju gën metti gën tar ci góor fitnay jigéen xadis bi buxaari yi moo ko nettali ak muslim alal itam noonu la mel famille boo gis kañ ca gën a xeeb mooy ku ca gën a néew doole gën caa ñàkk société boo gis kañ ca gën a mooy ka ca gën a ñàkk moo tax imam shafia radiallahu anhu daf daan wax naan yamshi alfaqiru wa kullu unaasin diddahu wannaasu tuxliqu duunahu abwaabaha ki nga xamee ne dafa ñàkk suy dox day yëg na ñëpp day yëg na ñëpp dañ koo contre te day yëg na bunt bu mu jëp jub ñu tëj ko waaw ah. ca wax ja dem na ba naan xatta alkilaabu ida raathu machiyan nabahat alayhi wa kassarat aniyaabaha xaj bi sax su dajeeg moom daf koy bow génneel ko ay bëñam ngir màtt ko te du xam lan mooy sabab ba kon fitnay jigéen ak alal sallallahu alayhi wa sallam nee na moom la bàyyee xeetam wi yonente bi salla borom bi tabaraka wa taala wax ci alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim zuyyina linnaasi xubbu shahawaati min annisa nit ñi dañ leen a taaral maquiller leen toital leen bëgg bànneexu ci jigéen lii mi ngi nekk ci suurat Ali Imran moo tax ña nga xamee ne dañoo duggoon ca xuntima xeer wa tëj xuntima ñu bañ génn ku nekk na wax benn jëf bu baax boo xam ne mas na koo jëf ci àdduna te yàlla dong taxoon mu def ko am na ci koo xam ne dafa nettali diggante mag ay way juróom nga xam ne su masaan ratt ak juróom su ñëwee daf leen jox ñu naan ba suur moom mu soog a naan moo ko njabootam benn bis mu dikk fekk ñoom ñaar ñuy nelaw mu toog ba ñu yeewu mu jox leen ñu naan ba suur mu soog a naan ak njabootam ba mu ko defee yàlla dimbale leen xeer wa ubbeeku tuuti am na ca koo xam ne benn mbokkam la bëggoon te sopp ko bu jigéen mu xañ ko àddunaam ba ka yàlla ba mu amee occasion pour mën a dajeeg moom ba tiim ko mu na ko ragalal yàlla mu jóg bàyyi fa soxna sa te ragal yàlla dong taxoon mu def ko ba waxee loolu bunt ba daldi di ubbeeku kon ñu xam ne nattu la ci àdduna bëgg bànneexu ci jigéen beneen bi itam li nga xam ni day indi fitna gannaaw alal ak jigéen mooy tuur deret safku dima tuur deret joo xam ne nii lislaam daganalul ñu tuur ko xam nga am na loo xam ne nii ku ko def lislaam dafa digle ñu rey la koo xam ne da rey ab bakkan te tey ko sharia dafa digle ñu rey la góor goo xam ne danga am soxna wala jigéen ju am boroom kër njaalo sharia dafa dig la ñu rey la koo xam ne danga nekk ci suuf di yàq yam suuna fii ardi fasaadan ñooña bokk na ca lañ leen war a ñu rey leen wala ñu pendre leen wala ñu génne leen kon képp ku rey rey boo xam ne sharia daganalu ko bokk na ci li nga xame ne mën naa andi fitna jëlee nañ ci abi xurayrata radiallahu anhu mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na walladi nafsi bi yadihi la yatiyanna ala annaasi zamanun laa yadri alqaatilu fi ay cheyin xatala wala yadri almaqtulu ala ay cheyin qutila sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono dana ñëw joo xam ne nii nit dana ray am mbokkum doomu aadamaam te du xam lu tax mu ko waaye nit itam danañ ko rey te du xam lu tax ñu rey ko loolu mooy fitnay tuur deret bokk na ci liy andi fitna itam wuute ak alquranul karim wuute ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa soo wuuteeg li alquran di digle di def li alquran tere li sallallahu alayhi wa digle ci sunna bàyyi di def lim la tere loolu dafay indi fitna borom bi tabaaraka wa taala wax na ci alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim fa imma yatiyannakum minni hudan فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى aaya bi mi ngi nekk ci suuratu Taaha numéro 123 ak 124 sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen jullit yi bi may yónnee ci yéen ab yonent jox leen alquranul karim mu leeralal leen yoon wu baax wi leeralal leen yoon wu bon wi su boobaa ku topp ci yoon wu baax wi texe ku topp ci yoonu safaan bi itam texe di inna al abraara la fi naimin wa inna al fujjaara la fi jahimin kon ku topp li nga xamee ne moom laa indi ci alquranul karim topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doo réer te soo génne àdduna danga nga texe loolu la yàlla wax ci aaya bi fa man ittaba hudaaya fala yadillu wala yashqa waaye nag ku woon gannaaw alquranul karim bi nga xamee ne moom la wàcce ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da alku ci àdduna da nga texee di ca àllaaxira mooy fa inna lahu maisatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyaamati ama moo tax bokk na ci liy andi fitna wuute ak alquranul karim wuute ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax si Ahmad Bamba radiallahu anhu daf doon wax naan wa afdalu dikri kitaabullahi ma tadabburi wal intibaahi li gën ci li ab jullit di tuddee borom bi tabaaraka wa taala mooy jàng alquranul karim ba pare ba fexe xam li nekk ci téere alquranul karim boobu te di ko jëfee ku taxaw loolu doo wuute ak alquranul karim jëlee nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu mu jële ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa salam mun a takaffala allahu liman qara alqur'ana wa amila bima fiihi an laa yadilla fi dunya wala yashqa fi alaxira ibnu abbas bun abdulmutalib mooy abdullahi ibnu abbas bun abdulmutalib nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na boroom bi tabaraka wa taala da alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin bu ko defee bokk yi ñu xam ne bokk na ci liy indi fitna muy ak yàqu gu mat gu tas ak moy yàlla gu fés ak bàyyi digla lu baax ak teralu lu bon sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabarak wa taala bi muy tagg xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna an il xeetu muhammad mooy xeet wu gën ci xeet yi li tax muy xeet wi gën ci xeet yi dafay digle lu baax di teralu lu bon waaye ñu bari ci jullit yi dañ leen a jaamu yàlla gu yàqu nattoo leen jukko yàqu nattoo leen jëflante bu yàqu te yàlla li warloo ak ñoom def na ko yàlla lim leen war a jox ci ab cër jox ne leen ko ba mu mat sëkk waaye nag doomu aadama dafa gaaw a fàtte ba su ko yàlla joxeelu na gàññ au lieu mu jàpp na am nattu la góor-góor la ci digganteem ak boroomam góor-góor la ci digganteem ak boppam góor-góor la ci digganteem ay mbokki jullitam day tëdd rek ne yàlla xéewalal na ma fa ama al insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqul rabbi akramani wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahaanani su ko yàlla defalee lu na gàññ mu ne yàlla teral na ma su ko nattoo def ko mu ñàkk mu ne yàlla def ma doyadal waaye su la yàlla joxee lu na gàññ danga war a dellu ci borom bi fàttali ko borom bi tabaaraka wa taala lépp loo doon def ci sa diggante mag borom bi ci ay jaamu yàlla nga yokk ko loo doon def sa digganteeg sa mbokki doomu aadama yi ci ak rafetal nga yokk ko moo tax borom bi tabaraka wax ci alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim fa lamma nasuu ma zukiru bih fataxna alayhim abwaaba kulli cheyin xatta ida farihu bima uutu axadnaahum baxtatan fa ida hum aaya bi mi ngi nekk suuratul anaam ci numéro 44 jaamu yàlla yi su leen yàlla defalee xéewal gun a gàññ dañuy dem ba fàtte borom bi tabaaraka wa taala waaye nag war nañoo xam ne yàlla dana du fàtte yàlla du fàtte ku teey la nag yàlla dafa teey waaye du fàtte innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda fa ma hilil kaafirina am hilhum ruwayda daf leen di bàyyi ñuy dox rek di def lu leen soob moom la war def na ko ci leeralal leen tari yoon wu baax wi ak yoon wu bon wi innal abraara la fi naimin wa innal fujaar la fi jahim waaye su la joxee lu na gàññ nga fàtte ko moom borom bi tabaraka wa taala boroom bi dana la bett ci mbettaanga loo xam ne nii foogoo ko woon moo tax mu ne axasnaahum baxtatan fa ida hum muflisuun kon nit ki warula la woon gannaaw yoon wi nga xame ne moom la yàlla tëral warula la woon gannaaw yoon wi nga xamee ne moom la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëral jëlee nañ ci abi abdullah bun amar bn al aas mu jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ida futihat alaykum farisun wa ruum ayu qawmin antum qaala abdurahman ibnu awf nakunu kama amara allahu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aw gayra dalika tatanafasuuna summa tataxaasaduuna summa tatadaabaruuna summa tatabaaxaduuna aw naxwi dalika summa tantalixuuna fi masakini almuhaajirin fa tajcaluuna baadahum ala riqaabi baadin abdul abi abdullah bun amr bn alaas nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne buñ demoon ba jamono ñëw mën na fee bañ a fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi leen wax ne suñ demoon ba jamono ñëw joo xam ne faris mooy Iran dafa nekk ci loxoy jullit yi Rome dafa nekk ci loxoy jullit yi su boobaa nan ngeen di mel yéen jullit yi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi doon waxtaan ak njabootam di leen poser question yooyu nan ngeen di mel maanaam alal ji bari na pétrole bi bari na gaz bi bari na or bi bari na nan ngeen di mel su boobaa yéen jullit yi abdurahman ibnu awf radiallahu anhu nekkoon kenn ci saxaaba yi bokk ci fukk yi nga xamee ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daf leen a bégalee na suñ dee dañuy dem àjjana abdurahman ibnu awf na ko yow salallahu alayhi wa su booba dañuy nekk ci li nga xamee na moom nga ñu digal salallahu alayhi wa na ko déedéet mooy li wolof def uhu uhu na ko déedéet su boobaa dangeen di jiiroo su boobaa da ngeen di jiiroo di xëccoo su boobaa da ngeen di soxarante su boobaa ku nekk dafay won moroom sa gannaaw fàtte li nga xamee ne moom la yàlla wàcce woon moom la sallallahu alayhi wa sallam waxoon su boobaa da ngeen di bañante su boobaa da ngeen di jël seen mbokkum jullit di ko dóor ci seen mbokkum jullit ku xool àdduna bi danga xam ne lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ñu ngi koy dund ku nekk xool na gis na koom-koom ji nga xamee ne yàlla teg na ko ci loxoy jullit yi ak néew doole gi nga xamee ne jullit yi néew nañ ko doole loolu yëpp xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy nettali muslim moo ko nettali bu ko defee kon nañu gën a góor góorlu ci lii nga xam ne moom lañ ñu wax ne day indi fitna ñu moytandiku ko sallallahu alayhi wa sallam nee na fitna dana tar ba nga xamee ne ab jullit day romb ay armel di ñaan yàlla ña nekk jóg ñëw ci àdduna moom mu tëdd seen place an abi hurayrata radiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal laa taqumu saatu xatta yamurra arrajulu bi qabri arrajul fa yaqulu yaa laytani makaanahu hadis mi ngi jógee ci saxiixul buxaari abi xoreyra nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa bis pénc ñëw balaa yowmal qiyaama ñëw nee na góor dana romb ay armel fekk am néew tëdd fa muy ñaan yàlla ne yàlla ak a neexoo néew bi génn ñëw ci àdduna ma tëdd palaasam ndax fitna su metti soo xam ne nii jullit yi dañ koy dund coono boo xam ne nii nit ñi dañ koy jànkonteel kon danañ dem ci jamono joo xam ne nii góor dafay mébét tëdd ci ab bàmmeel remplacer fa nit koo xam ne nii dafa faatu bu ko defee kon mbokk yi déglu ñu ngi yem fii ba yàlla mayaat ñu occasion ñu mën a dajawaat ak yéen waxtaan ak yéen ci nan lañuy def ba mucc ci fitna yi